Respecter, biñu bëgg respecter suñu engagement ci liñu bind suñu charte parti motax mu teggi tankam. waye may wax ni dara téré ko mëna a fi té ci daje dina ñëw parce que baña jité parti lañ ko téré wala am ci yenn nombre en tant que président de parti waïe, il demeure un militant et le premier militant de ce parti té yenen daje bu amé bu soob yalla dina fi may wax ni président Bassirou Diomaye Faye kenn ci ñun falu ko kenn ci ñun falu ko man mii faluma ko kenn ci yenn falu ko ndax bu war am gëm-gëm lañu waaye nag yàlla dafa wax ni kulima kuliman maalihul mulk kullahuma mulk tuutil mulka man tashaa'u loolu la yàlla wax kon yàlla moom dong moo yor nguur mooy seet ko soob mu jox ko ko bu dee Basiru Joomaay Fay moo ko soppi fii Sénégal moo ko tànn jaarale ko ci carte électeur sénégalais yi dong nag kon ma fàttali leen lenn lu am solo laa koy soog a nettali ay 2015 boobu ñu ngi doog a door ci parti bi ñu tuddee ñu benn waxtaanu diine fële ci Kër Massar mënuma woon dem ma def benn délégation bu ndaw ne leen dem leen ca délégation ba daal dem ñu ànd ma ne basiiru joomaay ba ñu demee dellu si nettali ma benn xiste bu amoon mooy góor gi doon def waxtaan ba li ma leen wax ni 2015 la Gor gi doon def waxtaan ba nee nañ ma bi ñu toogee di waxtaan dafa toog ba si ne leen waaye jële ngeen gis ñu ne ko ah mu ne leen kii de président la ku nekk di xool naan ko kan mu ne borom baxane bu ëpp bële président de la république la bi ñu dellu seen nettali ma ko ca la ñu door di ko tuddee di ko wooyee ñun sëriñ gundu ñu bëri xamuñu tur boobu ñu koy wooyee sëriñ gundu kon nañu xam ni président de la république ak beneen ndomb tànk rawane bi nga xam ne nag nit ñi dañuy dajale di ko tànn kuñ ci tànn rek yàlla la tànn te bu tànn bi jaaree fi mu war a jaar kom nii mu demee nañu xam ni mënuñu woon am président bu gën président boobu ci jamono jii te ma biral leen waxaat leen ko fii yéen waa Pastef jamono jii ñu toll Bassirou Diomaye fay nekkoon président de la République mo gën téeméeri junni yoon ci Ousmane Sonko Nek, président de la République loolu mooy mbiru yàlla. dama leen musa wax wax bu am solo mës naa dem Sor ñu ka fa mbir mi métti woon lool ma defoon benn vidéo waxtaan ne leen nag li ma yàlla may ma may du sama njàmbar ku bëgg a noppalu ci àdduna mbindeef bu ne lu ko yàlla may nangul ko ko boo rek soxol te yàlla yow kon son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Fay, président de tous les sénégalais moi président bi décidé tey ci Sénégal ñun ñëpp ñu ànd jàppale ko mu exécuter son programme da ngeen ma invité nag ci waxtaan ci ab thème waaye thème bi ñaar lay doon ndax Juan Branco ak euh, Saïd na ngeen ma je serai obligé de beaucoup parler en wolof pour toucher le plus grand cible la plus grande cible du moins mais je crois que vous comprendrez et je m'évertirai de temps en temps à prononcer quelques mots en français pour vous, mais pour, pour nos amis africains qui ne ratent jamais aucune de nos sorties. Je vous ai dit que PASTEF est devenu un projet africain, mais il est devenu un projet mondial parce que nous sommes une attraction. Ce que nous avons réalisé au Sénégal aujourd'hui inspire toute l'Afrique et de temps en temps, nous devons pouvoir nous adresser à toute l'Afrique, à tous nos parents,

samay vidéo yi ma préparé won pour waajal li nga xamné ne la gars doon waaj pour euh, faqasal suñu projet dama len wax grand maître est politique du monde ñukoy tuddé sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. man janguma man janguma Machiavel liruma Machiavel liruma pour am note bi may nek première année droit constitutionnel dama len wax ni ki dak politique ci àdduna loolu dàqantewul ak dara nak li nga xamne tasunyu ciosanu cosaanu mi mooy laïcité te suñu bos ñun ñu togg ko ci suñu mu suñu culture moy état bi dafa nek à équidistance ak diine yëpp respecté diine yëpp lolou kenn du ko laal kenn djégé wuko ñi doon xam ba gëm ko té mu noon nag déglu leen alquran wax in jaakum fasiqun bi naba fatabayanu ñi leen doon déglu ci lolou ñomi tay am nañu luñu ñu rus moo li xew Sénégal ñun ñëpp la wara doon leçon ci ñun ñun ñëpp la wara doon leçon ci ñun nañuy nawante di dégluwante di rafetante njort koo xamul rafetal njort ci moom ba keroog mu lay won safaan wi waaye ku noonoom di ñawal boo moytul pantalon bi du jot wala yére bi dina cëkk noon yuy dem di wër di wax tey bi ñu toogee ba léegi ñëpp la ñu yemale ku bokk ci jàngu bi ku bokk ci diine islaam ku bokk ci tarixa bi wala tarixa bële ñoom ñëpp la ñu yemale ci Sénégal te Sénégal dëkku réew jullit la réew gëmgëm la ñun ñëpp ñu yar ci loolu loolu ku ko fi bëgg a jëlee yaa fiy jóge ci lu gaaw amul sikki sàkka kon li may wax dàqantewul ak lii ma tudd léegi mooy man sama royukaay ci wàllu politik ki yàlla yónni mu nekkoon ci situation bu ñu nekkoon amul ngànnaay amul alal amul bàjjan amul nijaay amul ku ko aar mu jox ko projet bu toll ni boobu ñu ko joxoon mu am fu mu jaar ba eggali projet ba ba tey ñu nekk ay milliards milliards kooku ku ko mënul rey ci politique koo fi jàpp jàpp nga ci neen kon fàttaliku leen ci vidéo boobu lan laa waxoon dama leen ne door nañu mu tombeek jamono ji bi mu nekkoon Makka moom ak lim fa dund ñu jóge ci wàllu makka gàddaay nañu yegg si dina may leen jamono bi may doon def vidéo bi ñu ngi doon dëgmal Hudaybiya ñi jàng xam nañu Hudaybiya ak lañ fa signé ci pacte ak noon nu mayee yonent bi alayhi fukki at yoo xam ne ci la tabax euh, ndëgërlaay gi nga xam ne moo ko may keroog bi muy jublu ci màkka fatu màkka bi mu am guerre amu fa Amufa, parce que ma nga 10 000 personnes bi mi 313 personnes kérok ci Badar mais len de joggé ci bobu té dañ ci gagné bu soobé def nañu Hudaybiya am nañu ko am nañu ko yegul ko ci xam-xam ak xel joggé ci Hudaybiya ñew ci Makka élection bi ñu wésu nous jox ñu ci ndam bu nañ. ñu ko ci sant bu baax kon ci ban étape lañu ñu toll fi mu toll nii mooy gannaaw faxtu mak mat fatxu màkka naka la yonent bi alayhi salaatu salaam yore woon mbir mi ak naka la doxalee mbir yi li may wax nii waxuma ko ci wàllu spiritualité maa ngi koy wax ci wàllu woo xam ne wàllu àdduna la ndax yonent bi alayhi du julleeg woor kese de waaw dafa amoon dimension temporel ci dimension temporelle boobu laay wax nga xam même occidentaux yi dañuy dem di jàng ci dimension par temporelle boobu naka la ko yoree woon moo tax suñu gars yi jàngal nañ leen naka la ñuy defee politique jàngal nañ leen l'art de gagner en ayant raison sans pour autant avoir eu leur avoir permis de développer leur art de gagner sans avoir raison léegi nag on va leur apprendre l'art de lier le bois au bois pour construire le Sénégal que tout le monde attendait gis ngeen ñii ñii duñu seen morom te sénégalais yi koy gisal seen bopp jamono jooju lañu toll ki ñuy roy ñun ci politique naka la ko doxalee woon ci ñaari fànn ba njëkk bi mu duggee biir màkka nee na baale naa baale naa képp ku doon def tey leen rekk dégg-dégg laa bëgg 두개 bu ñu déglantee rek bu ñu déglantoo rek su ma mee ba ma daaneel rek dinañu déggoo ñun ñëpp da ngeen ànd ak tey dama wax léegi présentatrice bi muy commencé ne ko neel ma gaay yi dama bëgg ñu déglu bu baax li ñuy waxtaan may gërëm yàlla nuyu et di féliciter également kilifa yi fi tew tay ay ministre ngi fi tew fi ay député ngi fi tew fi ay maire ngi fi tew fi ñu ngi leen gëreum ci sé teewaay way di dellu sante yalla ndax tay ñu ngi ni am ay ministre tay ñi ngi ni yor gouvernement tay ñi ngi ni yor ay député yoon bi métti woon na lool ngeen am ci nag taxawaay boo xam ne dinaa ci dellusi waaye nañu ànd ak déglu rek dama ne moom bi mu yegsee dafa ne baale na waaye baale bi mooy lan est ku sàcc alal réew mi bokk na ci baale bi musuñu wax ni balé nañu ko sacc alal réew mi soy balé da ngay mom. li nga mom dërëmu réew mi mom mako président Bassirou Diomaye fay mom ko kenn ci yeen mom ko kon musse bok te suñu discours yëpp mën nañ ko génné kenn du ci génné gis contradiction ci point bi kon d'accord nañ ci te ma ne gars yi mi ak légui li ñu gis day na waar de jarul lappi lappi jarul yooxu ñun duñu complot duñu créer kenn dossier dañuy faxasu leer nañ ne justice mi ngi nii wax leen lu ci yoon wax te fa la ñu jëm est-ce que baale bi est-ce que baale bi ñu wax baale bi est-ce que fekk nit boo xam ne day revendiquer ay droit loolu muy xeex nga faagaakal ko dóor ko balu fital mu dee est loolu bokk na ci baale bi mës ngeen ñu dégg ñu dañuy baale loolu kon ma dalal xelu ñépp ni lañ ca war a def dinañ ko def jarul yàkkamti jarul parax-paraxe ndax tey bu ñu bàyyee ñi jàpp Didier Badji ak Sambu, daal di leen def liñ ñu def ñu bayi len nga rey nit keneen ki nga disparaître loko dem ba ci geej ga sanni koor ba ñu ne loolu yëpp nañ ko effacer dem bu boba ñun suñu bop criminel lañu kon musuñu len wax ni ci la bok te du ci bok japp nit parce que da doon manifester. commissariat diko torturer est-ce que loolu bok na ci balé bi musuñu ko wax ken dama ne. dem recruter ay nervi ndax fàttewuñu nervi yi de dem recruter ay nervi jox leen ay ngandaay ñu song nit ñi di leen dóor ak di leen rey est-ce que bokk na ci baale bi musuñu ko wax kenn am état jàng ko ca fa ñuy formé nitu état yi moo tax lu ñu yootu ba téye ko xam leen ni téye nañ ko ba mu dëgër àndi leen ak tey ak dal ñu ngi ci liggéey bi lan la ñu waxoon ni mën nañ ko baale man usmaan Sonko nee naa lañ ma def man mu jëm ci man kese lañ ma def man mu jëm ci man mën naa ko baale baale naa ko te di sàkku keneen koo xam ne keneen koo xam ne sa xol may na la nga mën a baale baalel parce que baale day féexal xol balé day yok nit du wañi wàññi lañu waxon ni ñun mën nañ ko balé wayé nak wayé nak wayé nak bo doxé ba ñu lay xex ay at jël li ñu amon ci moy yeb dalal ko sa kaw tiiñal la yaq sa liggéey dugg sa vie privée essayer tas sa kër toj say auto dóor la ay lacrymogène la kaso loolu ñu def la ko ca jamono ji ngay opposition nga ànd ak muñ jiital yàlla ba yàlla jox la ndam jaaree ko ci Sénégalais yi xanaa kay ku am xel tuuti nga ne nag léegi naa teggi sama tànk waaye dafa ni suñu gars yi nañ ni di xëy di di sosal di wax lu bon tranquillement ma bëgg a leeral sénégalais yi lenn ñun suñu responsabilité en tant que ñu yor nguur te président Bassirou Diomaye fay jiitu ci mooy réew mi il faut ñu delloo ko fi mu ne woon réew mi xamuñu woon lii de bañante enante di wax lu bon ci nit suba ngoon parce que rek àndu ci politique yéen ñëpp dégg ngeen samay discours yàgg naa leen wax ni ku fi wër di saaga bokkoo ci Pastef lu leer laa musa wax yàgg naa def samay vidéo naan leen bàyyi leen lii bàyyi leen lële Pastef musul yónni nit ci saaga wala xaste wala tiiñal wala di sosal nit ña ko doon def gis nañ leen parce que bañ ba ñu jàppee ki koy def ñoom ñëpp génn nañ dem commissariat ne dañuy dem jàppale ko est-ce que mus nañ jàpp nit bu ñu ne dafa bokk ci Pastef ci ay saaga son ko dem fa wala mu wax ci mësula am kon may wax ñëpp nag suñu responsabilité en tant que état mooy réew mi ki ma ne mooy suñu royukaay ci weer wi ñu toll weer wi ñu toll muy weeru tabaski ci la def tàggatoom discours tàggatoom li gëna a fës ci discours bi mooy seen alal seen deret ak seen orma araam na seen diggante ci weer wi la ko waxoon deretu nit

am tolérance ak kenn a commencé par wa Pastef yéen ñi seen bopp duñ ci am tolérance ci kenn barki démb semaine passée ministre de la justice man la envoyé vidéo ne ma kii ci Pastef la bok te mu ngay menacer magistrat yi dama ko monsieur le ministre defal sa liggéey ñun newuñu fi di xool kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax loolu lañ doon xeex démb duñ ñëw tey di ko kon fi ñu saga kat soxla wuñu xulo kat xam nga li ñu soxla kat, jublu ci liggey bi rek te dina ci ñew ci deuxième partie bi may wax noonu ñu ko bañé ci kenn ku ne non lañ ko bañé ci kenn kuy wootewu mo xam da ngay bind mo xam da ngay yor télé kuy le journaliste parce que l'impunité bi am fii dafa journaliste liberté de la presse mun naa xëy bind lu neex ku ma neex ma bindal na ci mi jeex lire code de la presse article 13 xaw article 14 wax na lan journaliste dem ay affaire bind naan dañoo dàq général sàngam Sonko ko dàq dafa doon dafa doon xeex rebelle yi moo tax ay waxu ñàkk fu la ñu ne ñu woo la ne la fan nga jëlee sa preuve nga naan benn sit internet bu nekk delawaar xaw ma fan loolu jeex na ci réew mi su Sonko sàccee xaalis su Sonko reyee nit su Sonko defee naka su dul noonu journaliste bu ci am preuve na ko bi def ko une bu rëy loolu c'est son droit loolu mooy liggéeyam waaye toog rek ne Sonko qui wala jox nañ ma xaalis wala jomaay neexuma wala ma wala demba dinaa bind lu ma ci ma la liberté de la presse. presse am liberté bu ci amul président de la république amul liberté président de la république Mais ñu fal le premier des sénégalais amul liberté au nom de quoi ab journaliste ni na droit du dee am fit nañ ko bindat Merci. Abgen. Rewmi. réew réew mi réew mi ñoo ko bokk te faw ñu defar ko faw ñu defar ko lu ne dégg nañ ko fi financement bu jógee Russie Al-Qaïda MFDC lu ne dégg nañ ko fii lu ne waaye daanuñu sax dem porter plainte parce que xamoon nañ ni boo ko defee du mujj fen kon nañu xam ni. liberté bo gis amna na limite am fu liberté ak droit kenen keneen commencé nañ koy respecter nonu la amé ci leneen ak lenen lempo bi ñuy wax mais yow nee nga chaque jour nga def sa ala une sa sa presse ne diw dafa détourné diw dafa sacc diw rapport bi épinglé ko yow ñu jox la nga dem say emploi yi liggéey sa si yow nga leen fay sen salaire da ci dag ne leen li impôt dama ko wara yobbu ci caisse état ba pare dam impôt bi sa poste lek ko lol détournement deniers public la ta xam ngeen lu ci code général des impôts wax dañ leen wara poursuivre pénalement waye yamo ci lolou am nga ñak jom bu tollu ñew nak ne waaw man ma sacc waye nak kenn du ci wax nañ ma bal ñu bal la nga ñëwaat saccat ne nañ ma bal ñu bal la nga saccat dina jeex ci réew ku yaakaar ni yor sa média mooy tax nga mën a chantage yi ñu daan def suñ ñëwee régime bu toog ñu chantage ko di bind ci moom gars yi gaaw leen woo jox leen loolu jeex na fi ñun suñu yoon man lu ñu bindul ci man man lu ñu bindul ci man mu ne suñu bind lu ma jaaxal waaye nañu xam ni nag la woon woon ni na de ku yeboo ku nekk looy wax ak looy bind na ko seet ba mu wóor nga wax ko bind ko moo gën kon duma ci sori ndax yi ay dossier la yo xamne dossier wu president basirou diomay fay la mbok yi yalla jox nañu rew mi dama ni suñu sociologue dañu wara jangat genn yenen terme parce que man bëgguma ñu naan nguur gi nguur amu fi luñuy nguuru amu fi